waaw jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen ñu bàyyi xel fii ci Dakar live mbégteeg kontaan la ñuy am di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq ci tabaski gi nga xam ne moom la ñu génn te ñaan suñu borom nangul nu te defal nu fekkee koy at yu bare bare bare jàmm am ci réew mi sax fi saawan baawan le marabout de Sonko mu ngi noonu Cheikh Ahmed Tidiane tey moom lañ seet si sëriñ bi gannaaw buñ la baaloo ak ci julli gi te di la baal tey ñaan suñu boroom jéggal na si suñuy rëcc rëcc ci at mi ñu ngi lay nuyu. Euh, alxaaji Malick ñu ngi lay fay di nuyu waa Dakar fi yëpp di di leen baalu àq di leen baal àq di leen masawu si coono bi ngeen bàyyeekoo Dakar ba fii ngir euh, njëriñu askan bi képp euh, beneen bu ci des mooy waxoon naa ko daaw waxaat ko ren waxoon naa daaw ne lii ñu tuddee Bercy Saloum fii ci kawlax laajo góomu ci waaye maa koy ubbee euh, fi ñu koy defee baaxut benn mm. ñaareel ba buñ bëggee buñ ci bañee am gàcca ci ci ayubis yi ñuy jëw mm-hmm. euh, nañ wattandiku te ñaanlu ci yàlla moo xam ki moom bis moo xam ki koy tudd si ki koy tëgg si loolu laa ci doon cof tuuti pour pour pour dimbalee leen ko mais biir Saalum bi ni nga ko waxee ni ni mu tàmbalee neexagul de ah waaw àdduna de waxoon naa ko daa waxaat ko ren àdduna lu mu lu mu dafa am yoon boo bàyyee yoon ba da ngay da ngay dugg ci guuta mm. euh, amaana nag maanaam nu mu tàmbalee muy xéewal la ca kaw leneen ak leneen waaye man mbirum musique sama yoon da cee nekkut waaye ki samp bés bi sampee ko fii ci Kaolack mm-hmm. dafa am ay wëlliwu ay kàngaam yoo xam ne dañoo tëdd fii seeni njaboot ne fi mm-hmm. mbir mu ne nag dangay aw fa nga ko war a awee nag sax boo koy ratt bëgg koo nax mm-hmm. da ngay jël doom ji takk ca tànk tànk nday ja buy gis doom ji rek amaana boo koy ratt doom ji lay sentir ne moom mooy nàmp fekk du doom ji waxin la nag déggin la laaj. kon maanaam ki tëgg bés Saloum daa waroon a jaar ci yéen ñaan leen ndigal ba noppi. déedéet mayewuñ digal xañewuñ digal mm. waaye al takk fii li man àq la mm. lu mu lu mu doo ci duggee loxoy neen daal ci gàttal loo duggee loxoy neen rek génne cay loxoy neen ñu yëg pas yëgle ak ñàkk yëg ak nangam déggoo li ma la wax xanaa ba tey bis bu ne mm. dafa am noo cay duggee na nga duggee amaana bul ñëw ci sañ seex bul dem ci keneen mais nag amaana boo awee fa nga waroon a aw mm-hmm. lu ci bari maanaam dana dana xaw a nangam te aussi tamit bii passé waxoon naa ko ñu dem ba ca digg ba am ay rëq-rëq yu ci commencé woon am am ñu ñu seet si it ñu def ca lañ ca man bii it bu ñu amul sens it hmm. amaana boo reppee dana am rëq-rëq. waaw daaw daaw euh, daa yéexoon a fees ren tàmbaleegul taw mi sóob bari loolu ndax lu yàq yëf yi. ah amaana daal ñuy ñaan yàlla ñu ngi fi. Hmm. ñi ñaan luy it bu ñu fi nekkee it dañ dajeeg ñi ñaan yàlla. mbirum mbirum musique nag sama yoon da cee nekk lu bari waaye nag. doomu Sénégal la jël xaalisam investir ko fenn alal jooju bu yàqoo état du ko ko remboursé te muy doomi Kaolack ñu dëkk Kaolack yéen wuñ ko ko yéen wuñ ko it ñi nga xam ni ñi ngi seen xaalis ci bis booba parce que am na ñoo xam ne yaakaar nañ ci ay million yéen journalistes yi yéen a ngi jógee Dakar ba fii ñëw pour film pour pour ñi nga xam ne côté booba lañ yeeyoo mais nañ koy tegal ñu koy xool pour di ci bëgg kon nag bis la boo xam ne daal du lu war a sàgganee tawaal yi tolla tut foo xam ne fu mu jug di dem rek maanaam day day jug rek ñëw rek yegg si léegi mu sottee ni mu déedéet moom ay mbiram yëpp gàllankoor lay commencé soog di am parce que fa inna ma'al usri yusran inna ma'al la la ay mbiram gannaaw jafe-jafe ci lay am jàppandal ba pare loolu nag képp ku koy tëgg wala képp kuy ànd ak moom wala képp kuy nangam da ay mbiram moom ba pare ni muy doxee mais ndem yaa tuuti moom jamono ji coow daa bari moom lool lool lool moom Waly Seck Waly moom ay koy doxal or bu jógee ci coow du doxat ay mbiram moom coow koy doxal xanaa moog Sonko dina xaw a lëkkaloo ah doy na waxoon naa la fi ne la ñoom ñaar dañoo dend bi diw dañoo dend biddiw lool sax. Hmm. parce que biddiw bi leen yàlla dénk mooy bala nga leen a bëgg da nga leen bañ ba pare. Hmm. ñoom biddiw boobu lañ leen bindee. Hmm. bala nga leen bëgg da leen di bañ ba pare waaye boo leen bañee ba xas ba bëgg leen. mënatoo mos a ko ne ba bañati leen te képp ko wax ci ñoom jaral na la xeex jaral na la yant mais ci ci ci euh, kaaw waali boobu sax dañ cee gis kenn ci ñi jege ñaan rek moom waxul wax joo xam dafa yëngal dëkk bi maanaam dem na ba ne waali moo tax mu wóolu yàlla. waaw xam nga yàlla moom fu ne la ko nit di gisee ci nit ñi nag daanaan dañoo naqat deret rek buñ ne mysticien diw gis na ci mysticien yàlla ñoo lu tax mu wax loola bu ne gis nañ ci walliw yàlla ñoo tax lu wax loola jamono ji da nga xamante walliw ak ku dul walliw mm-hmm. ñi ñuy waaye walliw ñooy lekk xaalisu état di lekk xaalisu ngar di lekk xaalisu politicien xaalisu mbër mm-hmm. di lekk xaalisu caga jeg xaalisu làmb xaalisu lu bon lu ne ankay parce que tey man mii bu ma ne laa mm-hmm. ab nit ñëw fee jógee fee na ma jege ci kàddu gi ñu ne ab góor jigéen la wala ab nangam la mu ñëw di ma ñaan loo yëkkati xaalis jox ma ko dama ko laaj foo ko jëlee mm-hmm. xaalis boobu xaalisu lan la ñaata sëriñ ñoo fi am xaalisu musicien di ndamoo musicien yi mm-hmm. diw sama taalibe la mm-hmm. ñaata sëriñ bari nañ di kon nag bu ñu àggee foofa ci yàlla xameetuñ wala lii wuy xameetuñ wayu yi te ñoom ñaar lii fa leen tàqale wala laa ma leen tàqale kon nag am na foo xam ne bu ñu fa yeggee wax dëgg neex yàlla kenn ku ci nekk da ngay xool li gën ci war a nga def ko moom dafa xool dafa xool ne moom amaana yàlla wàll da ko woon jikko yi nga xam ne amaana gisu ko woon bari rek moo tax mu ànd moom waxee noonu tamit duñ ko balaami ci loolu macha allah loolu am na solo ni ma ko waxee léegi ñu génn ci tabaski sa waa ji fu mu jullee président Ousmane Sonko. këram ak ci xolu sénégalais yi jeex na foofu jullee këram ak ci xolu sénégalais xam nga jullee jullee Ziguinchor uh-huh. ak jullee Dakar uh-huh. jullee ci xolu sénégalais yi ko dàq. mooy doon xaar mu génn dem def dara def dem ci jumaa ja non Ousmane moom mënatul sol dara ju ñu jaaxal. dara ju dara xam ne ko gars yi sol dara dem ca jumaa ji julli ji mënatu sa sol dara dara ju ñu jaaxal dara bépp dara jum sol rek ah. alhamdulilah rabbi alamin te mënatu sol lu gën a kawe jasiñe rek mbasin ris ak comme ça comme ça comme ça hmm. mais dafa ñoo indi lu gën dara nag mooy mu yéene ñu ñu tabaski ci jàmm mu yéene ñu réew mi dal hmm. fi ko nit ñi doon xaar mooy mooy nitu fitna yi te hmm. ba pare ëlbati ko di ko ooyee moom nitu fitna fi ñu ko doon xaar fala leen njuy moo dañ doon xaar bu génnee mu yëngal réew mi ba nit ñi buñ tal tabaski bu ko defee ñun c'est la première fois c'est la première fois de histoire du Sénégal Ousmane Sonko xañ tabaski sénégalais yi xañ nangam xañ nangam ba pare profité waale ci loolu nangam te booy xool maanaam toujours bu ñu créé problème ñoom ki jiite réew mi day daw génn ba pare ñu créé problème ci biir loolu pour angu seeni problème sëñ Cheikh nag ren président dawul daa dem aj ñu màkk daa tombe aj gi moo soxnaam doon am aj ba mu toogee ci nguur gi ba léegi mi ngi soog di uutee tabaski Sénégal bu ñu toogee ci nguur gi ba léegi jàppal li ma wax xam ko takk mais est-ce ajam moo jot. de waaw heure ajam dafa jot nag heure wàccam bu jotee heure ajam jot ku sa wàcc jot nag wax dëgg neex yàlla war ngaa dem sant yàlla xamal ko ne ko yaa ma jox réew mi 12 sant naa la gërëm naa la maa ngi bëgg a taaxali ko sénégalais ci jàmm ndax kat ni ndax nekkul man li may xalaat mbay ndax nekkul ni nim ñu naxee noonu la pare pour dem naxee ko yàlla. waaw yàlla kenn du ko nax de <laughs> ah ma nga àgg. aj gi dinañ ci ñëw sax après loolu après la dinaa ci ñëw. Hmm. comme ni ko waxee euh, bi président Ousmane génnee daa wax daa mel ni moo tax nga def sa balan bu baax de dana woon ngeen dem tabaski seeni kër ci jàmm ak salaam. waa ñu ngi félicité Ousmane ci waxam jooju mu wax. Mhm. jëmale ko ci ndaw ñi jëmale ko ci réew mi. Mhm. d'abord avant tout di félicité sëñ Abdou. Mhm. mu daaru musti di suma xarit di sama wóllëre di nit ku baax nit ku yàlla baaxal. di nit ku ñeme dëgg. di nit koo xam ne gëm naa ne bokk na ci xeet bi nga xam ne bu Cheikh Ahmadou ba dekki woon. du du ruslu li tax muy bokk ci moom. dafay am ci famille. waaye it di sant Serigne Cheikh Saliou. mi nga xam ne def na teraanga joo xam ne sénégalais yëpp la umpoon ñu naan fu muy jënd jee xar. fu mu koy amee fu mu koy nangamee mu ñëw dajj bunt bi ubbiku te foofu danaa fa def benn parenthèse bu ndaw yàlla dafay def lu yéeme Malick. sëñ Cheikh Saliou est-ce yëg nga ne moom mooy Serigne Antoine Diome. yëgoo ko yëg ko tey. ci moom la su ko jébbalu. mooy Serigne Antoine si Diome. sëriñ Cheikh moom mu nekk sëriñ Antoine Philippe si jonn moom lay Youssou Ndour demoon këram di ko seeti mu fàttali ko sénégalais yi mu ne bu recevoir ko hmm. du yegg si ñu ne déetuwaay ñu ne ñamaas ñamaas sëñ Cheikh Saliou waxal boppam ne Ousmane Sonko def koo neex te yàlla tax mu bëgg koo doomoo ci wàlliwu tool noonu hmm. Ousmane dem fa mu xelli kafe jox ko image banque fi ñëpp a ngi koy gis hmm. ca lu yàgg man lu ne damay indi argument par argument ba li ñëw mu xelli café jox ko wax Ousmane Sonko ne ko képp ku fi ñëwal maay xelli sama bopp yëkkati bara de ba max la ko yaay xelli sa bopp waaye yow ma lay xellal sama bopp mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa dañoo boole yonentu bi boole ñu yàlla boole ñu sëñ sëñ Saali boole boole ñu ñetti boole yi nag duma ko du ma ko jaayis mm-hmm. yëkkati xel li ba pare joxal ko boppam ne ko am naanal mm-hmm. Ousmane naan mu ne ko doomoo naanal te daara ji danañ la bàyyoo muy taalibe yeeg ndongo yi fi nekk kon loolu it wax la mooy danaa la ñaanal yàlla te danaa danaa la dénk sama borom ba pare faslante fa mu kóllëre ñu ne déete waaye Ousmane di dem di uy ñu toj otoom mu dem hôpital euh, Soma di faju sëriñ bi yebal délégation ñëw mu yëkkate un million franc CFA jox ko ne ko maa la ko dolli say ordonnance yéewoon naa la lu ëpp lu ëpp lii ñu teg la waaye nag wér laa la gën a yéene comme ni ma ko yéene Sénégalais yépp waaye nag muñal laa taqaf wala tahzan inna allaha maanaa la ko wax ne ko muñal yàlla mu ngi ànd ak way muñi ka indi enveloppe ba wax lu yëkkati joxe Ousmane ca enveloppe booba gannaaw yàlla ca la génnee lam faye hôpital ba wax day soog di jot pour ñu koy wax yu mel noonu bu ko sëriñ defee bu wax jotee lañ koy wax ñu ne deete waay mu seq ak Ousmane teraa ngay ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla heure bu ko Ousmane seetee wala mu dëggante moom téléphone pour yëkkati dara pour jox ko àddee daf naan ko yow maa war a yëkkati jox la ndax lu yem ni impôt demen ñu dénk ko benn citoyen sénégalais mu teel ñu ko ma am ca keneen am ca mu génn sàmmal ñu ko ba dë ba sàccu ca dërëm kooka bu jox di am ñun ñoo ñun ñi nga teel alal jooja ba sàccoo ci ñoo war a yëkkati suñu alal di la ko jox xoolal gii mbaax ci kilifa di ko wax ci ci politicien ñooñu deete waaye ñu tëj buntu kër Ousmane barakate ko tàqale ko ko ak sénégalais yi ñi sénégalais yi yaakaar kenn ca ñoom muy sëñ Cheikh Saliou yëkkati initiative am yëkkati xar muy jël million wala lu ko jege teg ko ci oto u bëgg yeble mu ne ko maa koy teg sama oto sama safoor indil la ko bul buusa yow toogal bul buuse bul yeble toogal maay def lépp mu ñëw mu teg ca enveloppe un million ne ko loo ko toggee waaye kii wàcce wuñu ñun sénégalais yi mm-hmm. kii wàcce nañu mm-hmm. kon nag ku la wàcce di sab mbokk muritoo tiijaanoo xaadiroo laayoo loolu yëpp c'est le détail mm-hmm. li ëpp solo mooy wala tafarraqu bi hablillah buum gu jëm ci yàlla buum googee jëm ci yàlla nag bu ko murit bi defee Cheikh Tidiane Niass dafa war a taxaw ne ko yaa ma gën ndax yaa def lu ma mënut lu lu lu ma lu ma waroon a mënal sénégalais yi nga mënal ñu ko gën ki gën ki ma gën ci jëf ak ci doxalin ak ci ragal yàlla ak ci taqulaa man nit gën ma nag ma taxaw ne la yaa ma gën lu may wàññi wàññiwu ma dara dafay yokk samay maqaama mm-hmm. parce que day tax yàlla xam ne kii may gi ma may moromam reconnaître na ko mm-hmm. kon danaa dëgg ci loola mayaale ko mm-hmm. nañ jublu ci yàlla nañ bëgg yàlla sañ Cheikh Saliou yàlla nga fi yàgg te wér ak mboolem kilifa goo xam ne mi ngi doxee nii ngay doxee ci réew mi ndax réew mi dafa toll foo xam ne ku jël sa initiative wax war ngaa jël sa initiative jëf initiative wax mooy lan imagine toi bañ tee wal fajëri sëriñ sëpp waroon taxaw ne wal fajëri kat tëj ñu ko tëj neexuñu exemple waaye sëñ Muntaxa dafa def dafa jëf comme ni sëñ Cheikh Saliou jëfee mooy dafa yëkkati juróomi million jox wal fajëri loolu mooy lan mooy état lii ngeen tëj neexuma parce que su ma neexoon sama alal du dem muñ ñëwee dama leen tàll parce que li état def neex na waaye dafa ne leen neexut ma parce que lan si delemin dama koy jàppee comme doomu Cheikh Amadou Bamba comme si que moom ni mu jàppee comme man may njabootu El Hadj Abdoulaye Niass ci mbaax ci njub ak ci taqulaa ci ragal yàlla loolu mooy nawlaantoo kon képp koo xam ne def nga lu mel nii jëmale ko ci tabaski bi jëmale ko ci Ousmane njëkkee ko ci sëñ Cheikh Saliou ak mboolem ku def lu mel nii sëñ Abdou sëñ Cheikh Thioro Mbacké euh, euh, sëñ Cheikh Amadou Bamba Diop imam Tayiru ak mboolem ñi nga xam ne modab bi ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay ci lu mel ni ak mboolem Pastef magu Pastef yeeg ñëpp sant nañ mhm. koo xam ne yëkkate nga sa xar wala sa dërëm wala sa alal jaare la ko ci maanaam ñu gën a jege Ousmane ba Ousmane jot ca loolu ñu ngi la ci sant cant gu amul ab parce que ñun la waroon mhm. bu méttee ñun la war bu neexee ñun la war mhm. kon lu ñu war ñu wàcceel ñu ko sant yàlla la parce que man patriote la comme ni mu waree patriote yëpp nag kenn ku ci ne ba ngay sëgg di rey sam xar sa xel dañ na Ousmane boo ko waxee boo ko waxul waaye bu leen tiit bu leen ragal lu ñii mënut ci yàlla mu bind asamaan ak suuf mënuñ ko ci moom mm-hmm. kooku moom maa leen koy bëggalee mm-hmm. fi may daanalee ci loolu nag dégg naa ñu am na décret bu wàcc muy décret lan dem jëli ji Ousmane alhamdulilah rabbi alamin ba leen yàlla tabas tabaski gi jële wuñ ko ba nit ñi tabaski ci jàmm ba sol seen yére ba suñu waat ko mais est-ce que du doon bàyyi gars yi jàmm rek ba pare gis nga wa yamkuruuna wa yamkurullaahu wallaahu xayrul maakiriin yàlla dafa yónni bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ne ko mm-hmm. baalil ñuy pexe suñ pexee ak seeni i xel yu jub ba pare man man nax saayal seen pexe loolu mooy lan mooy noon buy pexe yaw nga tawakkul ci yàlla ah tawakkul ala allahi fa huwa hasbu inna allaha baaligu amrahu nga tawakkul jël say mbir teg ko ci loxo yàlla bu boobaa yàlla dana la dana la man maa yadullaahu fawqa aydihim man sama loxo moo gën a kawe mbooleem loxo te ku ma sédd nga séddu waaye nag ku ma garanti kenn ku kenn mënu ci yow dara ñoom seen pexe bu juboon mars 2021 duñ ca génn waaw a mu mënta muñal mars 2021 ngay jaamu ji yàlla mu tëj la ne la doo julli ji kooku bu ne la dama lay muñal tabaski war nga koo gëm waroo koo gëm mais nag dafa am loo xam ne bu ko ay nit ñaanee la leen la leen ñàkk def loo duñ ko xam suñ bëggee jàmm ci réew mi nag ak li leen dese ñu motali ko mooy nañ may seen bopp jàmm may réew mi jàmm may Ousmane Sonko jàmm may réew mi jàmm nag benn jiit wut xam ne ñëpp xam nañ ne dossier caaxaan la dossier bi li tax ñu def li yëpp xam nañ ko ñun dañ leen cee waxut benn setalee Ousmane Sonko définitivement Adji Sarr day tëdd te Adji Sarr heure bu tëdd dana yoole mboolem koo xam ne nii bokkoon nga ci dossier bi nga tëddi ñu ne kon nañ xaaji fi na ñaar mooy nañ setal aji mais ci biir setal aji gi mooy aji bu mu waxati bu mu nangam na toog calme pour ñeneen ñi bu ñu sulleeku bu ko defee ñu jël mbir toppee ci Ousmane bu ñu toppee Ousmane ba topp ba topp ko ba topp ba nga xam ne kii na bu ko defee ñu ne levé nañ ko setal nañ ko pour bu Ousmane waxati lu jëm ci aji bu ko defee muy kit muy maxinin lii kese lañ jublu ci dossier bi ci àtte mais aji aji dafa defoon appel moom te loolu déggaatuñ ci dara appel ab aji ak appel ab Mbaye ñaa wax dëgg ñaa dañoo soreewut ndax sàcc bu ci sàcc sàcc bu dul nelaw jërul yàq sàcc bu dul raw jërul yàqee nelaw lu waral loolu lu waral loolu ñëpp xam nañ ko parce que kenn ku ci nekk xam ne ne ku jub bu yëree réew mi ku jub laa wax bu yëree réew mi hmm. dana bari ñoo xam ne nii ñi ngi naan ñu ngi doon yóbbuwaate nit ñi ca yoon hmm. yoon mu leen di jëli ji loolu doy na waar waaye tamit ci biir loolu euh, keroog Ousmane sonk dañ koo gis ci discours boo xamante ni ñenn ñi dana ne dafa taxaw taxawaayu ustaas di waaraate ba indi taarixu tabaski Ousmane mat na ustaas mat na imaam mat na njiital réew mat na ustaas mat na imaam mat na njiital réew ah, keroog joxe na ay dalil am gis nga dinaa sëñ Abdoulaye daan wax ne réew mii hmm. fekk demuñ ba am ndaw lu am Pastef mhm. duñ génn ci caaxaan duñ dëñ it ci maanaam mbugalu état ci kaw ay kilifa ba duñ mën a wax seen taalibe dëgg mhm. waaye nag heure bu ñu amee ndaw lu am ak rek mhm. réew mi jóg jóg sëñ Abdoulaye laa la wax de xoola ba muy wax loola ba ndaw lu am Pastef ñëw tuddee parteem ak Pastef kon moo la war a xamal ne la mag ñi lépp lu ñu daan wax dañ daan junj rek ba ñoom mu des nag yow miy dégg bu dégg jotee nga war a dégg la nga war a dégg mooy lan mooy Ousmane jàng na alxuraan ba rafetal ko bu vacances jotaan mu nekk université nit ñi dem ci seen kër yi di gis seen yaay ak seen njabar seen mag yeeg yu mel noonu moom daraan gedd yaay gedd baay dem ndar jàngi ji yaa ngi dégg daara Zeynul Abidin dem jàngi ji ñu ne déeti waay mu dem ba rafetal dem di jàngi fiq dem di jàngi lasraar lasraar lii sëriñ si def da koo jàng billahi wa rabbul kaaba xawaatim boo dagg mu damm mën na la leen xawaatim bi dafa damm fii la damm lii lii ci war a dugg lii nangam lii nangam salaatu bii lan moo ci gën maanaam heure da da lay leer ne heure boo toogee heure boo toogee ku am xam-xam mu lay wax ci Ousmane da nga naan kii kon lan la. parce que li mu jëkk a wax mooy bu toogee ak yow xam-xam ba xam-xam maanaam bu dee yow xam-xam français nga maîtriser ci loolu rek lay dugg ak yow ci waxtaanee ko ak yow. du dugg ak yow ci leneen pour éliminer la. bu fekkee xam-xamu yii ñu maîtriser ñun lu jëm ci wàllu alxuraan lu jëm ci wàllu fiq lu jëm ci wàllu lasraar lu jëm ci wàllu nangam ak nangam. ci loolu yow. ah salaatu bi moom lu lu ci gën tur bi nangam tur bi nangam ah waa nangam nangam maam mu lay leer na kon kii mat na imaam parce que mat it ma imaam weesuwul mooy réew mi fi ñu yaakaar ne fa lay tàkkee nañu di la pousser pour mu tàkk di def lu la naqadi di la xoñoñal di dindi sa àq ak sa yelleef yow nga dalal réew mi ci sa kàddu te réew mi yëpp doon xaar nga wax waxu tëj nañ ma fi euh, maanaam filiti nañ ma indi nañ ma problème indi ma jafe-jafe maa yëng te loolu dafay yëngal xolu gor te bu yëngalee xolu gor lu ne mën naa amaat yow nga dalal xolu gor ñëpp maam maanaam indi indi indi dal ci réew mi beneen bi ci des mooy lii rek la ñoon xaar ci moom xaar xanaa ki xamul Ousmane waaye ñi ko xam lii rek la ñoon xaar ci moom te lii lañ gis ci moom it ku ku xamul fitna yaroo woo ci sa ndey sa ndey xamul fitna say àndandoor xamul fitna sa baay ma ca àllaaxira yàlla ko yàlla yërëm te yokki leeram xamul fitna yaa ngi dégg say rakk say mag ak say wajur xamuñ fitna yow fooy xamee fitna sa sëriñ bi lay bi lay tarbiya xamul fitna yow fooy xamee fitna fan nga koy xamee mais ki nga xam ne nag maanaam mboolem li ànd ak moom ba ca moom doxalinam ak jëfinam lépp fitna la bu ñëwee bëgg a def boppam nitu jàmm defee nitu fitna am na foo xam ne bu ñu fa yeggee yaa war nit ñi kan mooy yor fitna gi ak mooy yor direction réew mi koy doxee mooy xool dafa war a dafa war a ñuul mu ñuul dafa war a weex a xonq mu xonq amul kenn kuy fi mu toll ku dul Ousmane Sonko loolu wa annal fadla bi yadillaahi yuti man yashaa la yàlla moo ko ko may nga bañ ko ak nga nangu ko mm-hmm. ñu jàll ci leneen mais euh, ci li may ci foofu parenthèse boobu mooy bi muy daane dane bu jullee ba noppi dinaa wax ci li jëm li nu jëm suñ seex mbaa du yëngalaat réew mi ah lu tax mu ne danaa danaa wax ci luñ jëm rek yow nga tëb ne mbaa dana yëngalaat réew mi ah, ni mu ko waxee daa xaw a doy waar de déedéet ni ni maam ni mu xewee actuellement nii moo doy waar te Ousmane waxagul Malick nit ñëpp am nañ xel ah. yaa ulil albaab la yàlla wax borom xel yi la doon wax mm-hmm. gis nga nañ bàyyi naxante da bàyyi caaxaan da bàyyi def doflu mm-hmm. Ousmane dama ne lépp lu mu waroon a wax wax na ko sax mais xanaa waxaat te lépp lu mu wax waxaat la ci biir la mu waxoon ndax ku fekk sénégalais yi ñëpp ñu ci ëpp cent quatre-vingt pour cent yëpp seen xel yi la ci nekkoon mooy jóg ca gaal gi tukki caaxaanee réew mi dogot dogot alalu réew mi politiciens di la jox te di la yàqal sa àdduna di la yàqal sa leneen ak leneen ak leneen mu ñëw sol seen xel yi ne leen réew mii bu ñu ko doon séddoo kenn ku ci nekk ci wala ñu labiti ko kon moomuñ ci dara mais nag pour ñu liggéey ba loolu jógee fii suñ moomeel bopp des fi loolu la sol ci bopp ndaw ñi kon kooku sol loolu ci bopp ndaw ñi dafa am loo xam ne bu ko waxul sax nit ñi xam nañ a wax lan la mhm. Ousmane nee naa la fi mu toll ak ay militant ñu koy xool bu paree coupé écran bi kenn ku ci nekk mën na laa résumé li Ousmane waroon a wax ak li mu bëggoon a wax barke alxuraan kanamam rek boo ko xoolee bu changé mhm. di nga xam bu bëggee di xam bu bëggul di xam loolu mhm. am ko ñu wax Nuaymaan ma tëjee foofu sahaaba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daan def bu yónnitu yàlla salaa salaam bëggaan ndawal wala yu mel noonu poosam xaw a sant si si mu ne ah man de bëgg naa ndawal de waaye nag moom sama poos daa xaw a sant si naa ko muññee sama borom noxoy maan day dem làqatu ci gannaaw miir damu bayu jàmbur wala xarub jàmbur jàpp rey fees dogat dogat ñëw togg ba mu baax ñëw indil ko ne ko benn soppee la ko yàkkal fële ay yow koy bëggal rek loo bëgg yàlla def ko yonent bi yonent yàlla salaa salaam teg lekk ba pare noxoy maan ne ko xam nga lu ma lay xamal Muhammad lii xaram jàmbur la dama koo fekk fële xam ne da ngaa bëgg ma ray ko léegi nag après danaa dem laaj borom bu ne lii laa koy jaayee boo xamee fay <laughs> waaw bu wëree ba gis borom ñëw ne ah maa da maa damal sang bi sam xar de waxal lu ma koy jaayee diw naa comme sang bi la koy may naa ko may naa ko ko ba mu yàgg rek sang bi ne ko noxay maan mu ne ko naam mu ne ko jéggal naa la ci xar yi ngay yi nga may indil ak nangam lépp loo ma indil ci bàkkaar la yow ndax li tax mooy yow sàcc bu sérieux nga mooy sàcc yi perte porte plainte waat sàcc yi nga xam ne dañuy sàcc ay milliards réew mi ñu ko gone yi waxee sàcc buy port plainte mm-hmm. fii ci réew mi rek la am kon nañ wattandiku <laughs> yooyu daal macha allah loolu am na solo waaye bala maa eh, génn ci wàllum tabaski ji du ma toog doomu daara ju mel ni yow te ñu gis vidéo bi nga xam ne mu ngi daw ci jullik tabaski bi imaam bi nga xam ne doon na julli am sàmbaay booy bu doxee ci àll ba paaka bëggoon koo faat suñu boroom musal ko ci mm-hmm. naka nga jàngatee loolu nag waaw bi ci jiitu mooy avant tout maa ngi muslu ci ñu jël ka ko doon bëgg a jëm sax ne Pastef la wala ñu ne imam ba Pastef la du ñàkk na ngeen dégg ko ci ndax moom mbir mu jub danañ ci dugal Pastef waaw dama ne mbir mu jub danañ ci dugal Pastef mhm. ndax li tax ñu ko ciy dugal mooy dafa am ñu bokk ci ñële mhm. ñoo gis mbir mu ñaaw te askanee wuñ ko Pastef mhm. loolu leen yàlla nattoo ñoom waaye bu ñu ko jëlee te ko ci cadre sénégalais ak jullit ak jullit rek ñu wax ca loola ba ñu dugg ci détails ak yooyu te loolu lañ bëgg ñun bu ci jiitu mooy ka def ñaawteef googa nañ enquête enquête yu leer bu dee ànd na ak xelam nañ ko tëj à vie suñ ko mënta rey ndax intention reyaate la jublu woon tax nag alxuraan def na ne anna nafsa bin nafs wala ayna bil ayn wala unfu bil unf ku rey nañ la rey ku dagg baaram nañ dagg baaram ku nangam nanganam beneen bu ci des mooy imam bi dafa def yëfi yëfi noble def yëf yoo xam ne imaam yëpp dañ ci waroon a sukkandiku maanaam sant ko gërëm ko njukkal ko parce que wane na ne ak imaam du ragal mm-hmm. waaye wane na ne it lim jàng ci lislaam moom laay jëfee mooy buñ ñëwee pour raysi la nga am réflexion wu gis ko wala nga xam ne kii dafa pare pour ray la défendral sa bopp soo mënul défendre sa bopp nga daw ba raw ca jaamu yàlla la dafa njëkkee ci défendre boppam mooy booy xool image bi lu muy gudd gudd ñett paa wala ñaari paa la sekki ñaari paa yum sekki yëpp maanaam ba tey duggul ci maanaam sàppeb ñi war a jiiti hmm. ba tey mi ngi ci rangé wu sàppe bi nga xam ne nii dafa vidd moom ma ngi ca ba tey kon moom kot wàllu wu ne mën na caa mën na caa taxawee nekk nekk ci mu julli hmm. mun mu def ñaari pas reculé bi mu defee ñaari pas reculé ba tey waxut it moom hmm. paaka ba ca loxo bi la jam fi taxu mu tafaat loxoom reculé ñëw ci si jaara bi continuer julleem loolu la ñuy xaar ci jullit loolu la xaar ci dignité loolu la ñuy xaar ci l'islam te tamit beneen bu ci des mooy ñaawteef yu mel nii war nañ ci xoolaat suñu réew. parce que mais bala ngaa jàll foofu euh, sëñ bi am na tamit sa benn euh, naataango ku ne imam bi gëm yàlla am daa des ci loolu ndax warul woon daw daa waroon taxaw ñu ray ko. sama ba naataangool. Cheikh Ahmed Cissé. ah <laughs> waaw loolu da ngay dem nga laaj ko mu ci diine. Ah, loolu yéen xam nga xam ne xam am ngeen xam-xam ci diine. dama bëgg a laaj lan lan la diine wax ci loolu daa ndax daa waroon a taxaw ñu ray ndax bu taxawoon du doon xaru. li ma xam ci diine daal mooy daw baraw ci ngóor la bokk xeex nañ xare dàq jullit yëpp ñu daw ba ñëwaatee taxaw yonent bi ne seen seen a ngëm na dafa àndoon dafa àndaat ak ñoom hmm. jeex na yonent bi fekk nañ ko ci xare damu bañam <laughs> mu reculer ak yeneen ak yeneen loolu kese lañ ci tontu leen imaam bi lim def sariya euh, nangu na ko sariya raw imaam bi bu foroon ay dallam sel daw laa la wax sariya nangu na lu raw loolu sariya nangu na ñu tiimale laa paaka ne la saagal ko soo paree ñëwaat nekk ci diine ji ngir la sa bakkan Sadio nag mu ne lu raw loolu vraiment waaye nag après da nga dem laaj ko moom lam la mu wax ci ban xam-xam la ko teg ndax xam-xam daa yaatu mais li ma xam te jàng ko man mm. mooy imaam bi dafa rawale bakkanam te rawale sa bakkan si jaamu yàlla la bokk mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass loolu am na solo kon ñoo ko déggandoo waaye maanaam daam loo junj sànq président ak soxnaam dem aji màkk mm. nga ne danoo daw te jamono yi aji màkk lañ toll lu tax nga ne danoo daw jamono bi ngay tollee ci aji màkk ngir ngir ngir deyaale ji sa borom yaa ngi téye benn jàmm boo xam ne depuis 2017 ba léegi yaa ngi ko teg fitna mm-hmm. ba pare yow ne na nga dem pour yàlla teggil say fitna te yow teggiloo Sénégalais yi seen fitna yàlla newul ci naxante il faut que ñuy waxante ñuy waxante réalité dëgg mm-hmm. te bañ di jaayante waxante réalité dëgg mooy lan mooy mbir mu ne fa jotee nga defee ko fa wàññiwul dara mm-hmm. waaye mbir mu ne fa mu ñoreewut nga bëgg ko faa yàkkee da ngay sonal ñay lekk ceeb ba ak yow sa bopp da sa bopp mooy lan mooy mbir mam defi bëgg nañ ko yéene nañ ko ko waaye dafa jotutoon ci moment bii moment bii bu fekkee jaamu yàlla rek la jaamu yàlla ci sa réew ba pare mooy nga may leen jàmm utal jàmm ci sa réew ba pare mooy nga nga tegg leen fitt na mais naka ngay tegee sa réew na wala sa gouvernement bi teg sa réew fitna goo xam ne mënut teggee ko ci ñoom yow nga dem màkk ngir sippi say bàkkaar yow màkk sippikaayu bàkkaar dong la du leneen hmm. am lan la sippikaayu bàkkaar ñaan say te yàlla nag du mën na laa may mën na laa fajal say soxla waaye soxla bi nga tooñ jàmm bi yoonu yàlla newu ci jàmm rek moo la ko mën a baal ki ko teg rek il faut que borom xam-xam yi ñuy leeral loolu ñi nga xam ne nitu nguur lañ wala ñu jege nguur buñ tooñee bay bëgg a dee yëkkati benn alal ay millions dem def ko ci jumaa wala def ko ci dara ñu naan yàlla mën na koo jéggal te mi ngi mi ngi jàpp jàmm bi di ko tooñ sa diggante jàmm bi nga yaakaar ne dem màkk gi dem def tawaaf bi sànni jamraak yooyu lu tax xelam dellu si Macky de ba tey xelam dellu si sax boo xoolee na muy sànni ay jamono rek mu nan nii maanaam ma nga mel ni koo xam ne <laughs> ay cëram daa damm ndeysaan <laughs> mën na ko ci na muy sànni ay jamono de mu naan nii ni koo xam ne soxlawul ca la kii dara <laughs> barke rasulilaay mu ne ko ci mag naan nii mi ngi mel ne kuñ takkal kum nëbut de xam nga nit bu ñu la takkalee koo nëbut maanaam doo man dara ca moom ca xool ko nii nga koy xoolee cat bët waaye moom da ñi ne doon sànnee kii ñi la doon sànnee iblis nii na iblis dinañ ne ay waaye kii am na ñëwante ci man di waaw waaye jabar ji de xeram bu mujj boobo boo demee Sonko la ko sànnil. déet waaye sëñ lu tax nga loolu. <laughs> ah kay sànneem booba ah sànneem booba de jàpp mu ne réew mi bañ na fi bañee na fi réew mi. lu tax nga ni mu sànnee lan moo ne ci sànni bi sëñ bi tamit. xoolaatal sànneem maram bi. lu ne ci sànni daawa daawa daawa daw ŋaata ŋaata ŋaat yeeg si maam dafa sànni boo indee lu ñëw ci jëkkër ji am na lu mu wax nag waaye la mu wax de ah man de la ma ko foog yàlla bu mu doon wax. Ah, waaye sëñ wax ñu ne ko de Marème bu dee xeer bi soo Sonko nga ko yéene ah métti de <laughs> sa sànni bi métti na boo dematee dee ko wàññi wàññi dégere bi métti na lool sax acca <laughs> mbokk yi ñoo ko dégg ndoo dégg ñoom daal moom tey daal fi mu daa ñëw pour tooñ euh, président ak soxnaam ñoom daal nee na sànni xeer bi noom bu dee Sonko la ko yéene na wàññi dégere bi daa ko de sànni bi dal na kon ah métti na de Marème dim ŋaatee yeneen yeneen a soxlaam yëpp depuis 2017 ba léegi de yeneen ko ci hmm. waaw soxlaam yëpp yeneen ko ci waaye du ñu def dara buñ ñu toogee insha allah dañ la ragal sa gannaaw insha allah amul benn problème yow jigéen nga jërëjëf sëriñ bi bala ñoo tëj nag euh, xam naa li ñu des ci waxtu sax bëreetul lan nga indil askan wi ci kaaraange ndax ku la xam tamit xam na ci kaaraange xam la ci ci yenn yi rajo Malick hmm. ñu gàttal lool parce que jot mayuñu ko hmm. waaye danañ dimbali nit ñi ci li ñu yàlla dimbali Euh, xam-xam moom la ñu ñëpp xamee duñ chroniqueur pour muy leer mm-hmm. waaye nag réew am na fu muy toll foo xam ne nag nekk chroniqueur day gën nga waxee xam-xam mm-hmm. ndax stabilité réew mi jàmmi réew mi mooy gën aussi tamit maanaam sa xam-xam bi la yàlla may mm-hmm. parce que jàmmi réew mi ñoom nga ciy dimbal te sa xam-xam bi ñum ñu soxal rek nga ci mën a dimbali ñu di leen kaaraange bu ñu wax wëllu mag wëllu mag heureusement da ngeen ñëw Saalum sax fekk ñu defar ko ba pare am ñu ñu ko defaraloon gii bu ngeen ñëwee moom la ñuy wax wëllu mag juróom-ñaari bootal lay am lii mooy bootal mu am téere buy nekk ci biir am juróom-ñaari gawu kii la ñuy wax ne képp képp ku ko takk génn maanaam mbooleem luy fitnaal doomu aadama yow yow yow wottu na la mbooleem loo xam ne dafay bànneexal doomu aadama songu na la boo gisee mag ñi bu seen doom daan dem guerre tubaab daan jël seen doom ak mel noonu wëllu mag lañu ko daan takkal gii na ko demal ak jàmm doom di nga dikk ak jàmm kii maanaam kaaraange goo xam ne la képp ku ko takk nekk bitim réew maanaam fitnaay tubaab da koy dégg rek képp ku ko takk nekk ci réew mu réew ni ko ñuul it fitnaay ni ku ñuul da nga koy dégg rek mm-hmm. coow dana bari wax dana bari waaye lépp loo dugg yàlla sotal maam sauvé la ci génn la ci kaw nag boo ko takkee mu nekk sa ndigg mm-hmm. li ma li mooy Cheikh Bara Ndiaye dafa dama gis benn vidéo bu gaa yi tas mu ne dama am ndomba goo xam ne ndombay kaso la ku ko takkaloo dem kaso ma gis ay nit ñu génn ne ndomba la xanaa dafa mi mm-hmm. Cheikh baara kañ lañ ko téye six heures du matin lañ ko téye këram sept heures ndomba nag ku ne xam na baaxam ne booy tëdd da nga koy tekki ku leen wax takkoon na ko il faut que bu nit ñuy wax de leen parenthèse ni nit ki waxee mais bu leen parenthèse nu mu leen arrangé bàyyi nu mu leen arrangé wut. parce que man aw ma aw ma jotu yàq borom xam-xam. beneen bi ci des maa ngi koy ñaanal fa mu fa mu nekk yàlla génn ko fa. ndax ñoo bokkoon combat bii di ko xeex. te amaana moom fa mu nekk it jombul ñu jombul keneen ndax fee léegi kër nit ñu baax ñi la. parce que bépp nit bu yóbbu nañ la fa Jomaay Faye ak El Malick takkal lañ ko bracelet ak ba Cheikh Bara Ndiaye ak euh, sëtu sëñ Fallou bi nekk Touba may fàtte tur bi. Euh, ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tee nañ leen ci loo xam ne le problème. mais daal kaaraange lu wër ci doomu adama la parce que jamono bii ku bëriwut ñu bëru daan sa kaw. kaaraange nag lu war la ci takk deer yi gis nga. lu waral ci takk deer yi. lu weesu tabaski gi jàpp 2024. mboolem fu takk deer nekk. mboolem fu autorité nekk. mbooleem fu nit ku baax nekk nekk ci état du Sénégal jugal sa bopp ci kaaraange jugal sa bopp ci samp sa bopp ak defaraat sa bopp li nag misaal mu may jox la ndax am na lu bëri lu ñu yàlla wan ci ñoom ñoom takk der am na lu bëri lu ñu yàlla wan ci ñoom seen njiit yi nañ génn ñu uti ñaan général yi nañ génn ñu uti ñaan bu baax a baax a baax a baax ni njiital réew di utee ci gouvernement am ñaan noonu lañ njiital armée war a ci armée bi ay ñaan parce que mu leen jiite noonu la kilifa diine gi war a utee ci ñaanal ay taalibeem kon kenn nit ku nekk fa nga nekk kilifa kilifa nekk fa chef utal leen ay ñaan ndax li des ci fii ak 2024 ku ne réew mi du tàng da ngay nax sa bopp fitna ju rëy mi ngi ñëw ci réew mi te ñaanuñ ko yàlla nag hmm. waaye nag ña war a wax bu ñu waxut noppi hmm. ñun ñu gis lu ñu war a gis yàlla wan ñu ko sañ nañ koo wax nag sañ ca ut ay attu ut ci ay sarax ak ay ñaan te buñ ci defut sarax def ciy ñaan lu ñu gis rek ñoo ko teg réew mi macha allah ma ñëw ci ñaari ndomba yi bii nii dafay jëm ci lu jëm ci wàllu suñ mbokk yi nekk bitim réew di jaay mayem foofa ñu téye leen wala ñu bëgg leen téye wala ñu leen i wër mm-hmm. ñu jël kii ñeent gaw la ñu takk ko mm-hmm. lépp lu jógewut ci ñeent ñent xible yi mënu si dara mooy ñeent gaw yi nii di ànd ak béjjënd bay kii béjjën béyu tabaski la lu jafe la béy wuñ tabaski béjjën ba nga toppatoo ko ba am ko moom lay ànd ak kii képp ku ko takk kii mag ñi nee nañ képp ku mu nekk ci sa ndigg président sax bu la fitnaal bu la bu la soxla woon nar laa fitnaal yàlla yàlla yàlla ëlbati xelam ba mu tal keneen ko dul yow billaahi wallaahi wa tallaay képp ku ko takk maam lépp loo dugg da nga ci génn mm-hmm. kii boo ñëwee ci àll saalim maam ñiy fóróot ñi daan fóróot dëgg moom lañ daan takk ñu daan fraude dëgg ci lañ daan takk dañ daan rombu duwaan nii maam du añi mu gis waaye mu ñëw ne xelam nekk ci bu ko jegee biir bi daw day jege duwaan bi rek biir bi daw du ko tal leneen lay tal xam-xam am na xam-xam am na kii moom yëkkatiku ci lay dox kii ñett la kaaraange la bayra la yëkkatiku la yëkkatiku mooy daraja ju mag la lay utal te aussi tamit kii heure boo ko takkee sa noon bu la gisee du am jàmm sa noon du am du am du am jàmm mukk bi laa yëmu diin waaye kaaraange baax na topp alaaji alaaji Malick hmm. waaye dafa am lu ko ëpp solo mooy ñu fexe ut am am xaalis waaw tey laay joxe loo xam ne mosuma ko wax ci télé mooy lan alaaji Malick newoon naa fi secret jaaro waaw waaye secret jaaro sirru ba dañ koy nëbbu hmm. te damaa dox ba dajeeg sirru sirri sirri ba sirru sirri sirri mooy lan hmm. mooy maanaam sirru mooy millionaire wala million sirru sirri muy milliardaire sirru sirri sirri nag mooy bap yaadeer doy na waar moom bap yaadeer mooy ki nga xam ne dem na ba nga xam ne day ñëw sax taxaw ci hôtel fanaan fa génn bëgg fay ñu ne ko hôtel bi yaa ko moom neex gis nga boo xamee yàlla hmm. ragal yàlla yàlla xamal la lépp lu jafe ñu bari jaaro bii bu ànd ak cangat yi mu war ak hmm. ñu jox la ko muy sirru yaasin hmm. ñu raxee ko secret Souleymane muy xawaatimu Souleymane ba ak mahabbahu yonent yàlla yusuf ba hmm. billaahi wallaahi wattallaahi bu dee ku gàtt xam ne nag mu ne lu tax waxoo nangam yonent yàlla ma yaasin mooy yonent yàlla ma salaa hmm. moo tax ñu ne secret bi yaasin ba hmm. léegi nag nga jël li mu war a ànd ak nga defal ko doomu aadama mu takk jaaro bii nga dugal ko xalwa ñett yoon la dafa am koo xam ne dafa bëgg maanaam ubbeeku ak nu mënta ubbeeku am koo xam ne dafa bëgg am am wërsëg am koo xam ne dafa bëgg alal kooku du lu ñuy wax waxu tele mbiru raw xaani la kooku bu ñëwee ñu jëflante ci ñu jëndloo ko yañ ko war a jëndloo mu nangu koo jënd hmm. ñu aw fañ ko war a awloo tëjuloo ko xalwa juróom-ñaari fan hmm. génn ca xalwa ga wax ko la war a def ci sarax mu def ko ñu jëkkat lañu war a jox jox ko mu laal ko ñu tegloo ko lañ koy tegloo fañ koy tegloo awloo ko fañ ko war a awloo kooku noppi naa ñàkk alaaji Malik kooku noppi naa ñàkk gis nga ab sëriñ nag bu naan la mën naa hmm. wala am naa nee ko koo defar koo fekk mu nekk mu nekk ku ñàkk nga def ko mu nekk mu mu ne la man kat eh, eh, nangam naa ñëwal dëkk waayam nga xool ko mën naa jubale ay nit nga ñëw këram fekk ay jabaram di xuloo ko xeex ak xéeroo ko ŋaayoo nga ne ko ñaanal ma sama samay samay soxna juboo sëriñ bi yabu la yow yaa ko yab mm-hmm. la yow yaa ko mm-hmm. damaa bëgg njaboot nga fekk sëriñ bi am doom mu ngi fay faju ñaa mm-hmm. da bëgg am da ngaa bëgg a am njaboot sëriñ bi yabu la yaa ko yab sëriñ bi damaa bëgg a tukki te amut passeport moom sëriñ bi amut passeport wala bu ko bëggee pour ma am ko day wër bay bëgg a dee nga ñëw ne ko damaa bëgg a tukki yëkkat seen mbir jox ko soo amee secret yooyu du ko defal boppam nañu waxante dëgg te bàyyi jayante hmm. ma tëjee foofu man yàlla daf maa dimbale dimbale gi ma yàlla dimbale ñett dimbal la hmm. bi ci jiitu sama jur wu góor hmm. maanaam ñi ñi dàq ñaan yàlla ñeseen tey woon siru ñaan ñoo ko yar ki ci jiitu muy alaaji Amadou Niass muy waajur ci oustaz Adem ñëpp xam moo yar sama papa sama papa yoroon caabi màngaseem nekkoon bëkk néegam ba mu demee ba alaaji Amadou nekk ko fi ñu jël góor ñu ñuy wax alaaji Omar Niass nga xam ne moom la wax ne mooy borom ittaqullaa ragal yàlla alaaji Omar du la wax mukk luy fanaan ñu dëkk ñeseen nag ñu mooy dégg alaaji Omar moom moo ko yar yar ko yar ko ba keroog muy sàngoo suuf mu lépp lu mu doon lu mu amee woon ci Cheikhul Jaan la ci ëpp yëkkati jox ko ko gannaaw nag bàyyam mi nga xam ne mooy deuxième xalifa bu maam xalifa alaaji Babacar Niass mooy borom jinne yi mooy ki nga xam ne nag daan na am léegi na taw léegi na sebete léegi kooku alhamdulilah loolu moom ñeseen lu muy rëy rëy bokkoon na ci ñi nga xam ne nii boo boo ko seppee gisuma gisuma kenn ko fi teg waaw boo ko seppee gisuma kenn ko muy teg am na mag mu ma nettalil ne ma am na kilifa gu mag gum seeti woon kilifa googu nag asamaan si të taw kilifa gi ne ko ah Babacar nag damaa bëgg nga ñaanal ma asamaan si taw mën naa koo ñaan yàlla waaye nag fi mu toll nii yow laa gis nga ñaanal ma ci yàlla su ma ne ko ah jox ma foofu juróom-ñaari junne sa jamono jooja kilifa gi dem kurtu kurtu juróom-ñaari junne jox ko. sama maam ne ah, waxal jigéen ñi ku yor lu tooy na ko na ko fat hmm. maa ngi ci néeg bi te boobu asamaan saa ngi leer nañ naaj wi génn kilifa gi kilifa gi ñëw wax jigéen ñi ne ne ah sëñ bi nee na ku yor lu lu tooy nga jiim koo fat rek ba xam lu yàlla def te ba fa mu koy waxee ak ak ak fi sama maam tëdd lu mu gàtt gàtt sore na ni 6 mètres kooku ñëw sama maam ne ko waxoo li ma la wax nee leen ku ci yor lu tooy na ko fat maa maa ngi jàkkaarloog sama sa sa sa sama sëriñ Seexu Tijaan maa ngi wax moom may dégg te bu pare dana ko wax yu rasulillahi te bu pare malaaka bi yor taw bi dana validé mhm. daf leen lu gaaw te sama wax ak moom yàggut fa muy waxee loola ak fa taw bi sumbee matut ñaari minit mhm. jant te lu gën a yéeme jant bi ne fàng dagg di génn naaj naaj muy taw taw bu rëy ba mu gi sëriñ bi ñëwaat na ko sëriñ bi dañoo bëgg nag wax dëgg neex yàlla doyal nañ ndox ñoo ko bëggoon doy na mhm. soo am ne ah bu ngeen bëggee ñu arrêté waat ko ubbi dafa am lu koy ubbi tëj am lu koy tëj joxe leen fukki junne ma tëj te ngeen wax ni ngeen bëggee sëñ bi ñëw yëkkati waat fukki junne yëkkati jox na ko am mu ne ah Seexu Jaan nag ne nañ doyal nañ yàlla sax ba muy musal Muusa def na qul na eh, qul na yaa naaru kunu bardan wa salaaman alaa Ibrahima ba muy musal Ibrahim ca safara sax def ne seddal sedd ak jàmm kon nag tawal tawub jàmm muy wis di wis ba arrêté ñooñ ak ñooñu nawet booba nee nañ mosu ñoo am lu mel noonu si jën si yàlla ba tey kon ñaan yàlla mi ngi fi mm-hmm. da bëgg doom ñëwal ñu jëflante ci ma dimbale la te yàlla tax da bëgg jabar ñëwal ma dimbale la ci te yàlla tax da da ngaa bëgg ab tukki ñëwal ñu jëflante ma dimbale la ci te yàlla tax da ngaa bëgg am bayre am nañ parfum boo xam ne ñu ngi koy defar képp kuñ ko jox nit ñi xam la bu may wax na dama naan la man ànduma ak ci réew mi ku nit xamut te ba may ànd ak ci réew mi ku nit xamut it booba kenn xamu ko woon it ñu góor góor lu mu góorgóorlu réew mi góor la daje wax la nag dégg na laaj xam leen ki may wax ñu ne déetawaay ah buñ ne am nañ kaaraange wala ndax moom am na kaaraange bu amutoon kaaraange dee na de waaye ñu nit bu ñu amutoon kaaraange dee nañ mm-hmm. ndax pexe bu ne def nañ ko côté bu ne wàll wàll fa ñu njëriñ mm-hmm. kon yi ñu koy faj ñu ngi fi mm-hmm. waaye ña bëgg ñu faja leen seen soxla nag bu ñu demee ca ña nga xam ne nii xaaf wala wala kaaf wala daalun wala zaalun wala raaun faanut seen bopp bi ñu ko damaa bëgg nga fajal ma seen sama soxla bi ñoo faj soxla bi faj la nga a jox ñu fajee ko seen soxla yi ñoom ba pare ñoom soog di ñëw ci yow te bu ñëwee ci yow soxla ba du faju kon na dellu ci ñii ñaan yàlla na ngeen dellu ci bëgg réew mi na ngeen dellu ci ragal yàlla nañ dellu ci xam réew mi nañ dellu ci xam actualité réew mi ñu jubluwaat nag ci focus 2024 moo ñu amal njëriñ gannaaw ba ñu waxee secret jaara beeg kaaraangeeg bay rek ku bëgg doom ak ku bëgg tukkee ku bëgg nopp ku bëgg nangam yooyu yëpp baax na waaye li ñu ëppal solo mooy ñu focus ci 2024 nañ focus ci jëmm jii di Ousmane ko bis bu ñu rawee lépp luñ doon ut danañ ko ñàkk bi laa yomi din nax nañ suñ maam yi nax suñ baay yi nijaay yi ñoo ci des nañ xool ba xam ñun dañoo bëgg ñu nax ñu wala dañoo bëgg dañoo bëgg ñun jëlee fi ñuy naxe wala dañ fay bëgg a bàyyi ñuy naxe ñu ñuy nax aussi tamit loolu nag question bu may laaj la mu des sénégalais jëm ñoo koy tont te tont bi du wax jëf la jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, di joxe dig daje ba beneen incha allah ban kàddu ngay tëjee mooy di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal tabaski jàmm di wax ni ñi ngi wax sénégalais yëpp kenn ku ci nekk ña ngi koy fekk fa nga nekk jox la loxo ne la baal ñu àq ci kaw ñu rel la àq képp koo xam ne yoreel nga ñu ak baal nañ la ba mu des safaan bi ñuy teg Ousmane Sonko baaluñ ko kenn waaw parce que nag damay souvent damay dégg nit ñi naan baal naa la àq baal naa la àq profité ci loola. man nag koo xam ne yoreel nga ma àq man seex baal la ko. ba mu des jafe-jafe yi ñu teg Ousmane Sonko te tay ko. kooku baaluma ko kenn ku yàlla bind. jërë ngeen jëf. jërëjëf sëriñ bi jërëjëf.